amiin amiin saawan baawan ñëpp ñu bokk di bénir le monde entier mm. di bénir le Sénégal amiin di bénir ay kilifa yi aadaam ak ay ak population moom yëpp amiin di sant suma ay ñaari waajur mm-hmm. jaarale sant boobu ci yàlla sunu borom mi nga xam ne moom ci ñoom mm-hmm. ñu dox mission bi ñu war a dox ba mu mat sëkk ma di sant gërëm di ñaan yàlla seen fan gudd ñu yàgg fii ak ku bi waajur nekk mm-hmm. ñu ñàkk seen waajur yalla fam ñu nekk gënal leen fi nga xam ne fi la ñu jógee. amiin atia na ci dal. li ma gis nag si sorti Ousmane Sonko yi. Mhm. brièvement damay wax ni du loo xam ni lu bees la wala mettel la. Mhm. dafa position bi moo changé. Mhm. il a toujours fait. mais en tant que opposant et ce qui avait fait même à ce mhm. que 2019, on a failli attaquer l'IDTFM par mhm. rapport mhm. à ses discours lui-même en tant que candidat. Nous voulons sur des troubles post-électoraux, you can Donc, mais juste c'est la position qui a changé, mais l'homme n'a pas changé. Donc, ni avons l'Union est européenne, l'ouest mais il l'avait déjà annoncé en citant même certaines presses clairement am ñoo clairement ci discours nous pousse le micro sans ko mais yow tu parles de son opposant oui mais est-ce que nous dem directement ci Ousmane Sonko premier ministre mais Ousmane Sonko, Premier ministre, n'existe pas encore. C'est ça le problème. <laughs> Ousmane Sonko, Premier ministre. Mais le Wahma, ben acte Premier ministre digne d'un Premier ministre. Ah, bah, maa acte premier ministre sincèrement qu'on soit sincère. je ne ñi nekk ci commentaire bi commentaire ni wax acte premier ministre vraiment digne d'un premier ministre un acte administratif étatique. qui mhm. a de l'intérêt pour le Sénégal. sur des questions très importantes dont il a soulevé et donc il a fait effectivement beaucoup de gens le suivent. Mhm. Est-ce que ces questions-là ont été abordées Donc, moi, je considère toujours Ousmane Sonko en tant qu'un opposant parce qu'il n'a pas changé de façon de faire. Il est toujours dans l'offensive, mais dans une offensive orale, mais pas avec les actes. OK, Légui, euh, Lai, xam nga yow Pastef nga bokkoon te ku wax Pastef euh, xam avec les réseaux sociaux yi euh, ku ku déglu ay discours Ousmane Sonko a dara tan bib neke opozant, an kwe dege sak mou yi wak, banan mafya kache kache bi, boulen baye, finye di doul, mounge dal. Wa lege, te yo bokpon ge ti groupo, lege, eske set mem person la, warna te yi, mounen ke premier ministre, wala mounen ke prezident entre guyon, e il byen pou menase se rezo sosyo la, bapare nan len, do toun yon nangou li di fi amti Senegal biye. xanaa dafa amoon beneen Sénégal ak hmm. Ousmane Sonko dafa yàgg wax ni dootuñu hmm. hmm. nangu nangam dootuñu nangu nangam loolu dañ ko ràññee ci ay kàllaamaam dafay joxe ay ordre même en tant que opposant loolu la def ba installé benn chaos boo xam ne buñ defloo attention Sénégal day tomber dans le chaos c'est pourquoi cette processus électoral là a été la plus mauvaise que histoire du Sénégal a connue par rapport à contexte boobu donc Ousmane Sonko ci loolu noonu la ñu ko xamee dafay menacé. Mhm. fay toujours menacé. Mhm. donc déjà annoncé une genre euh, une certaine dictature. Mhm. dootul ñu nangul lenn li. ñun dootul ñu nangul lenn donc c'est très clair il a annoncé les couleurs. ok ñu nangul lenn mais lolu quand mënu ko déggé leneen wolof la. c'est maintenant à la presse de s'organiser <laughs> mais peut jouer son rôle maintenant. mais presse bien ko faloo naa hein, Vous lolo. faites, bokk na ko fal. toujours la presse. Uh-huh. doit war jouer son rôle tout court. Uh-huh. tout simplement. Uh-huh. c'est-à-dire dafa bokk ci ñuy faire, comme la population bi bokkee ci ñuy faire, c'est-à-dire concernant tout le processus. donc presse bi à un moment donné il ne faut pas qu'il accepte d'être politisé. ok foofu rek mooy nekk Mhm. Euh, su ko defee bu taxawee moom fi mu war Tout taxaw du am kenn parce que c'est la population elle-même qui vont effectivement être bouclier te gis ko fi ci ko fi ci ak ok légui ñu avancer touti euh dem ci tong-tong euh, bi nga xamantene mo am au sommet de l'État euh, kumba am ndey ak kumba amul ndey d'autres souffrent et d'autres sont trop à l'aise eh, pour ne pas dire eh, déclaration politique générale après 15 ans de service Jomai a économisé moitié milliard 500 millions de francs CFA. ah yo, minek Europe de Yakarnane, di feye ko bu 4000 francs suisse Yakarnane, mouno ne ci ci <laughs> donc eh, ce donc, euh, tantôt au sommet de l'État, c'était prévisible aussi. Des euh, parce que comment on est parti On mhm. est parti par rapport à des slogans et mhm. des actions. Mhm. Euh, la politique autrement. Wahni, ce n'est pas des questions de bilan, mais c'est des questions de bonne gouvernance. On veut un Sénégal, Bohani, dont on est parti pris. Mhm. On veut un Sénégal pour une ne justice bi dafay libre. Mhm. c'était ça en fait le projet C'est ça que loolu le nit a toppee woon le projet. Mhm. Beaucoup de bëggatuñu népotisme de kuy fal sa ay mbokk. à bëgg ñu départ waxuma Pastef sax ci li mu wax moom ci ay waxu Ousmane Sonko. Mhm. par rapport ak appel candidature ak lépp. Mhm. mais avant loolu en tant que syndicaliste dafa signé woon charte bi nga xam ni. moom mhm. mooy assise nationale yi. te loolu dafa leeroon par rapport appel candidature bi foofu la njëkk a leeree. ñu ñëwaat waxaat ko waxaat ko mais maintenant appel candidature boobu noonu au sein du parti même. déjà y a un très grand problème. boo xam ne dina génn pour le moment comme poste yi jeexagul. beaucoup de personnes se retiennent. Mais les, langues vont se délier bientôt. Euh, ça, c'est moi qui te le dis. Euh, à côté. Petit top, je ne vais pas être démagogue, mais je vais prendre un exemple. Mhm. Très simple. Mhm. Euh, El Malik warul ministre des transports. ok parce que politiquement dans dimension politique quand même dans ce qu'il faut pas oublier la dimension politique par rapport à son combat dans le passé par rapport à, à avoir

lii nga xam ni la ñuy wax xarale yi jëm ci wàllu réseaux sociaux yi wax ji ak communication mm-hmm. moom tey la ñu jox transport. Mm-hmm. ma firndeel leen ni léegi dañoo war a dem lijjanti moom. Mm-hmm. ban diplôme moo ko war a may mu dem defi transport boobu noonu. kañ la ko exercer kañ la am diplôme bi ak kañ fan la defee stage ba def ay euh, prouesse mais foofu grawul Mhm. parce que un poste ministériel. Mhm. c'est l'administration qui compte. Mhm. donc si tu es bien entouré c'est l'administration qui fait le travail. fi mu dangereux oui. Tu as un exemple dis-moi. fi manqué management pouvoir de management. parce que management beaucoup moi moi permettre quand il y a des situations de crise de mën régler sans pour autant nga gagne le bi wala nga exemple tabaski tu as un Eh. dafa def démonstration de force. ci mm-hmm. benn syndicat boo xam ne dafa am doole Sénégal. Mm-hmm. te ñi ko fi song ñëpp dañoo mujjee reculer parce que les transports kenn du ko wedd dañu am doole mais dañoo am des cadres de négociation yoo xam moom lañ koy defee. donc doo def euh, bu fekkee ni mënoon na mën de si jamono boobu doo di nga wàññi sa prix yi mais doo dem fekk leen ci seen biir garage. tu organises quelque part d' autre fu clair fu neutre. parce que sénégalais sont libres, nañu te tu es l'État et tu aides les sénégalais et tu as le droit d'aider les sénégalais. Mhm. dès que tu entres dans la confrontation rek fait que tu installes déjà une affaire pour xam pour ngeen dem si benn dialogue de metti et ça problème de management ça mhm. c'était une partie c'est le parti par exemple qui nga xam les ministères parce que tong il y na parce que am des ministres de Diomaye et des ministres de Sonko. dinañ ci dans les détails aussi <laughs> euh, bu ñu ko des dans les détails. Sonko dans ce gouvernement mais maintenant le danger le danger c'est au niveau des directions hmm. par contre au niveau des directions hmm. couverture du ministre de am il exécute directement hmm dañu am ay budget xaalis bu bari ba pare il exécute directement dafa am ay prérogatives yu ñu am yoo xam ne mën nañu am ay partenariat di signer yenn mbir yi moo waraloon euh, le président Sall waxoon ni képp ku fi directeur wala ministre bu fi signé loo xam ne par exemple dafay laal dara ci góor jigéen wala yooyu di nga ma tooñ di nga warta di nga war Sénégal maintenant tey gis nañu benn directeur général bu bu ONAS boo xam ne tey jox nañ ko auto 80 millions bu mu indi loolu moo indi ñu dàq ko muy ki ñu njëkk a dàq mais loolu mooy li feeñ Mm. quatre-vingts millions yooyu xëy ci oto la nekkoon moo tax mu feeñ ak ay nit yi muy liggéeyal mais bu fekkoon ni quatre-vingts millions yooyu dafa jaar ci beneen circuit loolu mm. lañ koy xamee ñun sénégalais et qui nous dit que n'y a pas d'autre chose comme ça l'éthique voudrait que aies, par exemple ministre des affaires étrangères buñ ko far compétence je pense que l'éthique, éthique may sénégalais aussi parce que sénégalais compétence après et donc dans le choix en tout cas depuis ans, des ministres y a des postes clés sans pour être démagogue mhm. pour pour politique compétence parce que

lay dafa am lu ma la bëgg laaj balaa may dem ci dernière question bi comme sa temps mu ngi waaj a jot yow danga nga bokkoon Pastef bokk ci instance dirigeante bi nekk ci kàngam yi wallaay ana seen projet bi c'est quoi le projet hein c'est ça Parce que le parti taxaw Ousmane mm. Sonko commencé le guider parce qu'il a besoin de par exemple de de s'afficher. Mm-hmm. mu commencé dem si presse une structure. si une mm-hmm. structure ils ont commencé à contacter des personnes. Mm-hmm. dans ces personnes contactées par exemple ils ont commencé à à investir la diaspora. Maintenant j'ai commencé à suivre le mouvement. j'ai contacté la personne qui était en France Sidi jamono Nous Nous dit, Nous ensemble Formez une nouvelle équipe avec l'aide du Sénégal parce que nous mhm. doon réunir du communiqué, mhm. du wax gars yi nan la ñuy cellule ak yooyu mhm. taxawal parti donc tout ça des bind de taxier, des intérieur yi di jéem adaptés et tout ça donc tout ça c'est théorique maintenant bu nit ñi adhéré jënd ay on vient dans la pratique ñu dem première élection ñu jéem a xool demuñu ñun kese donc y a eu des failles Il y eu ngi comprendre législative 2017 ci les ba ñu

Hum. yow yaay di xool nga ni Allemagne xam naa fa Sarr te benn patriote de ku bëgg Sénégal la. Hum. xaaral ma woo Sarr Sarr ko convaincre ko ñu ko rejoindre ñu jàppale ñu dañu bëgg ku ñu taxawal foofu. Hum. Sarr ni ok ma ne ko Sarr jëlal benn salle bu fekkee ni même am nga dix personnes je t'envoie des cartes envoyé le à règlement intérieur bi ak yooyu noonu nga séddoo ko ak seen ay gaay ngeen def benn assemblée générale euh, provisoire ngeen fal benn équipe au moins boo xam ne dina légitime mu mën di wax ak les instances du parti c'était ça mon rôle dans le parti pour ñu implanter ko maintenant maintenant à Dakar dañoo amoon benn rôle le top management mooy dañu formé woon le mouvement des cadres donc si biir mouvement des cadres boobu nga xam dañu ko séddale ci pàcc yu bari santé ak lépp lépp lépp lépp ñoo ñoo waroon càmbar kenn ku ci nekk ci sa côté bi ñu la jox les lépp li nga xam ne nga xalaat li le problème des Sénégalais ak li ko war a améliorer nga proposé ñu boole loolu def benn synthèse Diomaye Faye boo ko jiite woon moment boobu mu koy jiite au lieu que mu def liggéey boobu defu ko il était en train d'établir des lobbies dans le pastif. donc ces cadres là ils n'ont rien pu produire tout simplement parce que fal dañ leen copté c' des copinages kon xam naa diw lii lay jàng ainsi de suite xam naa lii xam et donc boo ko gisee dans les nominations ils ont pas nommé les plus performants mais ils ont nommé les plus visuels Ngagne Demba Touré bu toogee bu ñuy waxee ay waxu mais dafay nelaw qu'on se dise la vérité. mais laay j'ai rien contre lui mais laay laay laay laay euh, pour ñuy bañ a gudd laay man dafa am lu la laaj en tant que ancien du PASTEF c'est quoi le projet parce que 2014 ngeen ñu waxoon projet ba yow ba nga fa génnee 2019 donc mais lan mooy je vais te je vais te dire quelque chose de très clair boo xam merci waaw Ousmane Sonko du ko weddi mm-hmm. Bassirou Diomaye Faye l'actuel président du ko weddi mm-hmm. Ousmane Sonko man bi may taxaw di wax dama génn parce que lañ ñu waxoon mm-hmm. ak la nga xam ni loolu la ñuy appliqué dafa wuute donc foofu maa ngi ñëw ci projet bi exactement xam nga lan projet bi. Hmm? suñu ko bind. ci processus bi laa la nekkoon di wax. processus <laughs> moo tax ma demee gis mu accéléré man Sénégalais yéen a ngi dem pour leen xam. Eh, parce que eh. projet bi amul woon idée la. ñuy teg structure bi bu ñu tegee structure bi ba pare maintenant lañuy ñuy boole xalaat yëpp bi ñu benn projet bu taxaw ci diggante bi ñu bàyyi fa projet bi au lieu ñu continuer liggéey ci liggéey ci loolu noonu ñu yàkkamti nguur. Hmm. donc bis fay commencé foofu lañ commencé yàq der bi. ok donc commencé lobby yi intégré leen ñu mën a jël nguur bi mais projet bi pour ma wax la. Hmm. kenn du la wax lii ñooy wax naan la ay PDF bii nangam sangam kenn du la wax un projet officiel bu ñu bind bo xamni ne ñoo ci and bo xamni déjà passé sur sur sur sur euh, bu ñu nekkee dañuy wax sur le droit. Hmm. existé wul tout simplement parce que assemblée générale mom moy def yenn affaire yi assemblée générale ñoom dañ ko suppléer par benen organe bo xamni légitimul. Hmm. encore une fois. ok walaay waa léegi comme ñu ngi jeexal parce que comme li ñu waxante woon maa ngi yow rek comme invité yi dañoo bëri donc projet bi ndeysaan bu ma comprendre laay projet bi eh, topp nañu projet bi mu nekk populisme jusqu' en 2019 kon li ahmed suzane kamara wax yaakaar naa war jaruloon ñu ko ciy jàpp Eh, parce que je comme, très bien ni... et très clair. Je défie quiconque, je défie John Haïfaï, je défie euh, Ousmane Sonko parce oh. que je connais tout le processus. Ouais, les gicons, comme ça. Exister ou le ticket au papier. Ouais, comme ça. Xamga lay suma ne la dama lay yobbu makka ren ñi tok ba makka passé yow waxo ci yow yabbi wo ci moy lan dama fenn donc ñiy wax naan Ousmane ak Jomaay dañoo fen mais mais fen mooy waxo dëgg rek donc kon projet bi da ngeen ko mujj yóbbu ci procès quoi parce que yow procès bi fekku la fa mais projet bi fekkoon na la fi mais procès bi bala muy ñëw yow fekk yenu nga say baga dem sa euh, lobus processus <laughs> la waaw tàmbale da nga ñëw avec des idées ah, léegi nag ñu ñëw ci des idées ces idées là tu les mets sur du papier très clair léegi donc man j'attends à ce que

duñ leen fi xaar ñu indil ñu leneen parce que ngelaw moom bu bu buñ la yónnee ngelaw nga résister ko leneen mooy ñëw indil te boobaa yàlla bu mu yegg si léegi ñu doon ñu doon ñu doon wax léegi dernière question bi en une minute rek nga résumé ko mooy euh, actuellement laay yéen au niveau suisse bi nga xamante ne euh, yéen yéen a porté woon sax presque Pastef parce que yéen a daan joxe lu ëpp ci xaalis léegi la diaspora te comme yow tu es tellement intègre ci diaspora bi tellement écouté léegi lan ngeen pour que naxembaay bi am pour que mu ci législative euh, J'en profite, je me donne l'occasion de féliciter euh, tous les républicains. Merci. Je félicite tous les républicains à Bourg-Multinec. Et je lance un message très fort à tous les républicains. Mm-hmm. On a un même combat. Mm-hmm. Dans ce combat, il faut savoir faire la part des choses. Mm-hmm. Le président Macky Sall est le président de la paire et il reste toujours. Et il mhm. a ses fidèles qui sont dans la paire à cause du président Macky Sall. Mhm. Et ils attendent le feu vert du président Macky Sall. Tant que le président Macky Sall n'est que le bourg type à paire, mm -hmm. à paire, ils resteront fidèles. Mhm. Euh, Amadouba, il a le droit Macky Sall jusqu'au sommet mooy a ko mu dem élection présidentielle. je peux le comprendre et dit que je ne recule pas encore. Mm-hmm. donc on est dans un numéro au xam ne ñu ci bari ñu bari bëgg nañu Macky Sall dellu si mais dafa nek ci projet lolu dafa laaj temps Amadou Ba donc nañ ko may mom aussi ça cette légitimité que le premier ministre exercer na le truc Il y a un vide qui est là. il mm-hmm. peut bien sûr effectivement euh, prendre ses envols s'il a envie de le faire et ça ne du dara ça grandit la très grande famille républicaine.